salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekk fan yi dañoo nemee ko ni dund bi seer na euh, ci wàllu ceeb beeg euh, diw geek ak suuga seeg meew bi duñ defee lu dul dugg laaj sénégalais na naka lañ ko gisee laaj tamit euh, parents yi yoo xam ne tamit tey jii di dépense war na leen naka la dundee loolu am na ñu naan tamit Euh, lu xewoon temps yi passé mu nekk manifestation bi fi amoon ñi naan Auchan yi ñu daaj woon ak péage yi est nekkul tamit président moom la bëgg a euh, récupérer ci dund bi bu ñu jógee waatee foofu am na tamit beneen yi ñu daan dégg que ni euh, Macky dafa toogoon ne woon jamono Laye Wade lu waraloon laa waat du yokk dund bi mooy taxi yi dafa cher te dañoo gis ne loolu noonu jamono ji dafa répété wu waat ci nguuru Macky Sall lu ñu def rek lu dul ànd sama cameraman bi jéey dugg laaj askan mi ñoom naka la ñu dundee loolu ate yee dem. metti na trop wax dëgg yàlla lu doon jar téeméer ak ñaar fukk dem bay jar téeméer ak juróom benn fukk loolu moom dafa metti ceeb bu doon jar ñetti euh, saako cinquante kilos ñetti junni ak téeméer dem bay jar ñetti junni ak juróomi téeméer loolu moom metti na moom dund gi moom wax dëgg yàlla buñ ko mënee wàññi ah ñun ñun père de famille moo moo ñu gënal. métti na ba ci kanamu yàlla parce que a am loo xam ne ni sawaay mënatuñ ko ceeb bi cher na dërëm bi cher euh, suukar si cher lépp cher denrée alimentaire yëpp cher léegi loo demoon di jënd ñu ne la yokk nañ ko lii te vraiment ay père de famille xam ne chaque jour ñu ngi koy jënd di ko kii léegi cher euh, na ba nga xam ne mëntuñu koo kii li ci sës nag mooy nag damay ñu wàcc ci ci ci mbedd dara te moom ci boppam daf ñoo bett ñun ñëpp lii moom bu demu doon tey moom xam na ne sax duñ ko votel parce que lii lépp moo ñu koo teg parce que lépp cher na kenn mënu fee am dara muy ceeb di dooli ni lépp dafa cher. li tax mu cher si Macky Sall la li tax mu cher si état bi la ndax Macky Sall moo waxul nit ñi dëgg la mu la wax rek ak am na leneen lu nekk si ginnaaw loo xam du dëgg Macky Sall moo waxul nit ñi dëgg ndax bu waxul nit ñu dëgg dund bu du seeree nii moo yàgg di wax ni ah, teg si yi nga xam ne moom la nguur gi di dundee bu buñ ko wàññi woon dund bi du seer ah, ba mu nekkee si opposition bi tey loolu feeñ na kon léegi. la mu doon wax démb loolu moo ñëw tey. képp kuy bërëm kër rek moom affaire yi dalay laal quoi parce que ku sañoon ak sa njaboot à tout euh, boo génnee sa poos même bu dee fukki dërëm sax li nga bëgg nga am ko mais nag ku ne gis na réew mi fu mu toll yokku nañu lépp affaire yi metti trop xam nga man mii di wax ak yow artiste damay tëgg sabar mais xam nga jamono bi fi mu toll nii ñun defe naa ne suñu aar sax doxatul parce que boo bëggee aar bu doxatul ba pare. bëgg ko boole ñu yokk dund day metti moo tax ñun fi mu toll nii moom. xam nga moom boroom kër moom dund bi moom bu yokk san franc sax la vraiment metti na loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye nag nañ xam ne aussi du Sénégal rek àddina bi yëpp la ah àddina bi yëpp la yokk-yokk moom c'est c'est c'est partout waaw loolu lool rek la. c'est partout di ñaan peut yàlla rek affaire bi mbas mi mën nañ ne bokk na si li waral feebar bi xëy na suy mbas mi jógee ah yàlla mën naa def aussi affaire yi delluwaat mu meloon. xam nga Auchan bi ñoom seen produit spécial la produit bi nit ñi du dundee fii. bu mu amee ñëpp dañ ne woon. trop tard Macky Sall dina am fu mu ko fayeeku du nekk ci ndox mi nekk ci dund bi est tamit duñu yaakaar ne lool. dana ko fayeeku fépp ndax sàcc la sàcc la fépp la koy fayeeku fépp la koy rocc fu foo yaakaar ne du ko rocc rek dina ko rocci foofu ndax sàcc la ndaxte ñoom état bi ñoom état bi ñu nekk état boobu état sàcc la ñoom si sàcc la ñuy dundee li problème bi mooy di diñu dimbaliwuñu askan gi xaalis bi ñu war a def si mbënd bi xaalis boobu la ñu sàcc xaalis bi ñu war a def si a uh, commune bi xaalis bi la ñu sàcc ndax Macky Sall 1000 milliards lañ ko votel ana 1000 milliards yi 1000 milliards yoo xamante ni mënul wax nit ñi 1000 milliards yi fii la dugg loolu sàcc weesuwu ko dafa war a leeral nit ñi 1000 milliards yi fan la ko dugal ba pare balaa moo wax leneen waaw dund bi yëpp mooy xaalis bi mu doon joxe si àll bi si ceeb yeeg couscous yeeg loolu la ñuy rocci waat si nit ñi kilo ceeb bu doon jar léegi 400 uh, léegi téeméer lañ koy yóbbu. loolu nag ban état lañ nekk loolu kooku bu jógee ne day dimbali nit ñi waxul li am fu nekk li ñuy xaar si moom mooy élection jot ñu jëlee ko fi. mais du ci loolu du ci loolu du ci loolu la ko bëgg ñii ñoom ñooy def seen i conneries di di liggéeyal tubaab yi du ci loolu de du question manifestation lañ fi yàq lañ bëgg a récupérer du loolu lañ bëgg a récupérer moom cest ñoom ñoo xam gouvernement bi ñu yor ñoo xamul fu ñu teg seen tànk ñoo xamul fu ñuy aw xamuñu fa nan la ak naka la problème bi loolu question. Euh, malgérance la. waaw yooyu yëpp mën na nekk parce que tamit aussi li li ñu fa jël bari na ñu fa yàq bari na te xam nga mën nañ profité nii voilà comme yàq nañ lii léegi naa ko récupérer fee dafay metti waaw mais nag loolu lépp nag war na sóoraale ni population bi daal comme li ma la wax sànq bu ñii jotee seen ginnaaw seen loxo jotee seen ginnaaw ñii seen loxo jotu seen ginnaaw. mën naa nekk ne loolu moo tax ñu yokk affaire yi waaw ndax dëgg yàlla ni ñi dañoo sonnoon trop loolu moo tax ah nit moom boo ko dee topp di ko topp ba sës ko ci miir ah, ci sa kaw rek la jëm si loolu rek moo waraloon gone yi génn. nit ñi moom seen kenn mënu leen tere ñu wax seen xalaat lii la président bugg a def te yow demuloo si xelam da ngay wax rek parce que dañ koy jàppee rek waxu rumeur mais loolu c'est pas c'est pas fondé pour man loolu vraiment mënuma si euh, sukkandiku pour mën a confirmer li nga wax quoi. moom dafa joxul cër askan wi loolu la moom lu yàlla na ko fi yàlla yëkkatee ak jàmm ak salaam. mais xam nga aussi état yi aussi si ay tax la ñuy dundee ah mënoon rek ne dangay teggi taxes yëpp bu boobaa aussi état bi du ñu mën a fay fonctionnaire du ñu mën a fay la état aussi lu ëpp si li muy dundee si taxes si lay bokk donc am na état mënul ñàkk am ay taxes quoi. lu ko lu ko raw sax moo ñëwaat lu ko raw moo ñëwaat ndax moom moo yëkkati woon saako sa saako saako parfumé yëkkati ko ne euh, bii bu toogee dana ko wàññi dana ko wàññi ba mu gën a wàññi ko ah, bi mu toogee. ah ñun gisuñu ko wax dëgg yàlla gisuñu ko cher daal la gis ñun. moom mi nga xam ne moom mooy borom réew mi dafa war a jël ay précaution jël ay décision xam ni doomu aadama yi am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mu dimbali leen parce que nit ñi du ñëpp a yem bu ñuy xëyee lekk yàpp am na ñoo xam ne ñu ngi xëy di sombi kon nag war nañ di sóoraale ñiy xëy di sombi bu ñu sóoraalee ñiy xëy di sombi rek dinañu sóor que lekk yàpp am na ñu ne seen ginnaaw ñuy lekk sombi Macky Sall moo waxul nit ñi dëgg la mu la wax rek ak am na leneen lu nekk si ginnaaw loo xam du dëgg Macky Sall moo waxul nit ñi dëgg ndax bu waxoon nit ñi dëgg dund bu du séeréer nii. man damay ragal nit ñi wàcc ci ci ci mbedd mi waaw te président waxu ci dara te moom si boppam daf ñoo bett ñun ñëpp lii moom bu demu doon tey moom xam na ne sax duñ ko votel lu ko lu ko raw sax moo ñëwaat. ndax moom moo yëkkati woon saako sa saako saako parfumé yëkkati ko ne euh, bii bu toogee dana ko wàññi. dana ko wàññi ba mu gën a wàññi ah bi mu toogee ah ñun gisuñu ko wax dëgg yàlla.